jaajëf sama gaay yi ñu ngi leen di jaajëfal te di leen wax ngeen wéy di abonné ci seenu Sport TV bi di aimé vidéo yi bu leen koy fàtte lu am solo la ci Liverpool la ñuy wax Liverpool nag gaay yi bi saison bi tàmbalee ba léegi Liverpool gisagul ah tax ba ñu bari actuellement di comparer Liverpool bi nga xam ni moom la ñuy gis ci saison bu bees bi ak Liverpool bi nga xam ni moom lañ doon gis ci saison daaw bi saison yi passé ñu bari nag jàpp ni Sadio Mané du ballon d'or africain bi <coughs> demam ca Bayern na dafa laal lu baree baree ci Liverpool daf ko handicapé en tout cas gars yi ay journaliste wax na loolu ni Liverpool moom am na empêchement gars yi Liverpool ñetti match la jeegul amagul victoire ñaari match nil ak benn défaite contre Manchester United deux buts à démb bi Manchester di daje ak Liverpool Liverpool mu ngi woon ci digg table bi mais Manchester en tout cas gars yi daf ko suruxal ba ci seizième place bi bu dee nag euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy waa journaliste bu nekk foofu ci Angleterre nee nañ demu Sadio Mané ci seen compte Twitter lañ ko bind nee nañ demu Sadio Mané en tout cas gars yi dafa créer benn vide foofu ci Liverpool mooy maanaam Sadio Mané demam bi dafa tax Liverpool ñàkk lu baree baree baree baree bare yoo xam ne daan nañ ko gis ci équipe bi ñu ne nag nit moom bala nga kaa xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg valeur mu daal di gisatoo ko daal nee na daal en tout cas gars yi fi mu toll nii loolu moom moo dal Liverpool mu dee journaliste bi nga xam ne moom mooy Rémi moo en tout moo gën a sori nee na Manchester United relancé wu na ci kanamu Liverpool ci troisième journée bi nee na sanction Sancho moo dugal ak Rashford bu nekk march bu rëy boo xam ne United def na ko en tout cas yi dóor ñi nga xam ñoom ñooy Liverpool gannaaw ñoom Manchester United ban jógee ci ñaari defet ñoom nee na Liverpool moom moo leen suqali nee na nag fi mu toll nii ñi nga xam ne ñoom ñooy Liverpool soreetunu zone rouge bi soreetun ko nee na Liverpool bi nga xam ne moom laay gis nii moom Romain moom mooy wax ni nee na Liverpool sans Sadio Mané c'est comme Lille poule mouillée avec Mohamed Salah face à Paris Saint-Germain nee na moom mooy Lille poule mouillée maanaam. Mouhamed Mohamed Salah dajaa nekk ñu war a daja ak Paris Saint-Germain <laughs> ndaw dóor yu bëri ay ñoom Mbappé ñoom Messi ñoom Neymar en tout cas bii yu mel ni luy taw moom Rémi Guélo la wax bu dee Paul Merson nag moom nee na waxoon naa ko te ko waxaat Liverpool erreur bu rëy rëy rëy rëy leen def moom spécialiste bu K Sport bi nee na bàyyi bi nga xam ne bàyyi nañ ko Sadio Mané mu dem ci bayaar na moom da wax ba sonn mais léegi nag mi ngi nii Sadio Mané ak Bayern na ña ngay jël première gagné seen match yi yëpp Sadio Mané di dugal Liverpool tewoo am victoire ci première ligue bi kon gis ngeen ni Sadio Mané du jour boo xam ne en tout cas jour bu ñuy néewal doole la mu ni Sadio maane jour boo am dayo la nee na loolu la waxoon te daf koy répété waat Liverpool dafa def erreur bu rëy a rëy c'est une grosse perte la jël jour bu toll ni Sadio Mané jaayee ko trente millions nee na en tout cas gars yi mënoon bi mais nag. nee na heure lañ def ñoom waa Liverpool moom Paul Merson moom moo wax loolu. dañ koy jeexale ak Grand Céleste mi nga xam ne ancien joueur bu Liverpool la moom nee na Sadio Mané joueur la boo xam ne looy wër ci joueur bu baax dafa nekk ci moom nee na Liverpool dafa def erreur parce que Sadio maane ba ci défense bi dafa daan marqué si Sadio maane dafa daan dimbali millier terrain bi Sadio Mané dafa daan organiser jeu bi ci kaw Sadio Mané dafa daan créer ay espace yi nga xam ne ci la Mohamed Salah doon prof ndoolu pour mën di dugal ay bi voilà moom noonu la ko waxee nee na Sadio Mané joueur bu complet la parce que apport am ci attaque Liverpool bi il fallait que ñu dem moom mu dem pour ñu mën koo comprendre parce que Sadio maane joueur la boo xam ni dafa complet moom Graham Souness moom moo ko wax waaw man na gaay yi ni ma ko jàngatee mooy football bi mooy tax ngay gañe football ki dugal bii moom mooy gën a fis ñeneen du chaque jour quoi mais lu ci ëpp waaw ñu ngi leen di jaajëfal nag di leen wax ngeen di wuy di abone di aimer waaw am nañ mbégte ak kontaan ci yéen jaa ngeen jëf